wóoli kaañ tëb. tëb fan tëb xalaat de fi mu toll maa ngi lox man ndox la nga ndox bilaay moo tax bilaay euh, jiili xale yi jël gaay yi di di dem Espagne vraiment ñu fit lii man maa ngi nekk ci kaw maa la mel ma tiit di maa ngi lox ñu ngi euh, loo di dem nii ci géej di fanaan ci géej gi vraiment vraiment vraiment vraiment lii moom na ci mag sal wax lii lii c'est grave géej gii nu bëgg a def fii ba Espagne waa li wóor na. ah yow de yow nitu ndox. non ma nitu ndox de bu <laughs> mag def rek naan nitu ndox. ah amul ndox moo fii ku jaar fii rek dem Espagne rek bilaay am nga jom lii ku amul fit amoo jom doo ko def lii. ku bëgg a xaru du ko def. parce que du xaru itam. <laughs> gisuma dara fii billaahi. billaahi mais sa garaaf laajte la ma gis la ma gis la nga nga ñëwaat Gambie euh, bi fi ñëwee woon sa combat ak Lirou Diane mu nekkoon journée boo xamante ne journée bu garaaw bu am solo euh, tey nag nga ñëwaat fii te bëre woo lan la. waaw. Jamaïcain moom ma fi àndi woon géej naa fi ne woon naa Gambie mbasa mbasa mais moom fu lu mu bokk maa sax. moo ma andi Lamine Samba waaw. non moom. ak fédération parce mooy dox lépp bu bu ma noon bàyyi Birama Ba ak suñu Bamba bu ma noon bëreel le 28 bii ma ma bu ma noon buy bëree du ma bëre. Lamine lu muy bëree te moom dañ ko aj moom aj aj ñoo parce que war a sant yàlla. Hmm. daam lu tax mu war a sant yàlla Lamine. dama ko dugal TFM tàgguwuma kenn yóbbu ko RFM tàgguwuma kenn mu nekk fa trois mois ci quatrième mois bi mu daje kilifa yëpp ba mu des Youssou Ndour ndax ku dajeeg Birane daje nga ak Youssou ku dajeeg Bouba daje nga yuusu ku dajeeg Ndiaga daje nga ak Youssou ku dajeeg Maradie daje nga ak Youssou Birane romb ko ne ko wulli mu ne ah, ko kontaan naa ci yow liggéey bi mi ngi dox. Bouba wax ko même chose Mara Dieng wax ko même chose kon bu fekkoon benn tànkam mi ngi ci biti ñaa ñaari tànkam léegi dugg na léegi lay tax ba mu des fa ci moom la xaw ma comprendre nga fi may wax ci moom la muy benn ñaareel bi mooy dafa am ñaari nit yoo xamante ne nii dañ ma leen di xoolee ñaari nit yoo xam dañ ma leen di xoolee muy wulli ak jamaïcain donc lu ñu def rek dafay répercuter si man. la ma Youssou Ndour waxoon rek laa lay dolli Youssou Ndour dafa ne Lamine Samba daf maa tooñ ma ne lan la mu ni ba may sos sama way fekkee woo ba may dugg studio fekkee woo ba may fay sama xaalis pour di enregistrer fekkee woo waaye way wi saa yu ko wayee xel yi dem ci muy jongante foo ak ree la foo ko déggee rek sa xel ci man ngay dem doo dem ci Youssou Ndour sax soo déggee way way jongante rek sa xel ci man lay dem comprendre baax la ma la donc kon ni ma amee sas foofu ñoom ñaar noonu la ñu amee sas loolu moo tax mu lay wax ni dëgg la bu dee bëre dafa may wax bu dee lii daf ma ko wax du ma ko xañ dara waaye je les à l'œil moom ak jamaïcain xam lu tax ma ma yor leen samay bët lamin xam lu tax ma yor leen samay bët tey bu ñu jékki-jékkoon maara day tàll yàlla na ma yàlla baal te jéggal ma ñu jékki-jékki rek gis jamaïcain naa ngan baal ma bien sûr du tux cigarette du def du du drogué wu ñu ne daa màndi dañuy wax yée lamin Sam day mandi suñu jékki-jékki woon gis tey euh, euh, wulli taxaw fa leen ashadu an laa ilaha illa allah ashadu anna muhammadan rasul allahu akbar dañuy wax Lamine Sam ba day julli est-ce que comprendre baax na comme lu waykat bu wax ne lu waay di nuyoo wuyoo da koy nuru ñoom suñ ma nuroo moo tax man du leen bàyyi Lamine Lamine télé laay waxee internet laay waxee wulli yaakaaruma ci moom nga baal ma de ndamuwuma euh, bàkkuwuma li jaar sama loxo jaarul ci loxo wulli dégg nga ma bu dee wërsëg ëpp ma ko moom bu dee ndimbal moom moo yaakaar man ma dimbale ko te loolu moo nekk ci jamaïcain waaye maa ngi lay waatal ci alxuraanu karim kenn du wax sama bopp moo ma la gënal waaye fi ma leen teg sori na lool loolu moom moo tax tey booy xool ñaata site internet ñoo nekk Sénégal Jamaïcain lii war na la jàngal lu bari ñaata site internet ñoo nekk Sénégal ñaata télévision ñoo nekk Sénégal ñaar nga fi gis wasaare ak Lutte TV ak TFM ñooñu nga fi gis nag ëllëg ak sibir bu la ko dara jaral bu la ko kenn jaral bu la ko fenn jaral Jamaïcain yow laay waxal de. dama ne. Ah. li nekk ci site et keroog ba nga wootee ci sama daral di def signature contrat compté naa fa gàtt gàtt gàtt gàtt cinquante site internet yu fa ñëw ba waa géej waaye yëpp dañoo génn laaj lu xew waaye tey bi mu nee tekk ñaar nga gis bu ko fàtte mukk wasaare ak lu TV bés boo demee ba tëgg li Gaston di tëgg euh, sëriñ Fallou di ko tëgg looy def jiital ci ñii waxuma la nga beddi nenn parce que ka tax nga gën koo war te gën ku ne sa sang nga te jamaïcain bi ngay ñëw fii fayoo fi kenn joxe fi kenn lu mu amul gars yi dañu ñëw pour di pistolet pour jaayal la sa bés ñun dañoo ñëw pour jaay bés bi signature contrat c'est commercial ñun ñii ñëpp dañuy wañ suñuy loxo euh, directeur de programme ak yooyu yëpp pour teg sa ay éléments parce que da ngay jaay sa événement mais del xool bu ñu nee bu ñu nee làmb bi nag suba la di nga gis télé yëpp di nga gis seen internet yëpp bul tere kenn ne ñëpp ñëw waaye jàppal ni kat man ba may xewle ñaar ñii ñoo ñëwoon wasalaam. jërëjëf jërëjëf Papa Lamine. ku baax Lamine Saba dafa baax tey ku ma gis rek. Lamine Samba la may laaj ndax sëñ Tuubaa ku ma gis moom la may laaj ku ne baa ma naan bi ataaya neex na. vraiment ma man maa ngi koy sant bu baax ba may ànd ak moom ak léegi gis naa changement macha allah ci sama bopp ak samay ñëpp barke moom kilifa yu bëri dañ may woo jongante buy daw sama téléphone dootul sonné. car ay kilifa rek nag bilaay ay kilifa rek bilaay wuli nii ku ma gis wuli inap Lamine Samba baax Sëriñ Tuubaa moo baax moo gore sa yow ak xaritu Lamine kañ nga koy indiwaat fii dóoraat ko dóori wetti euh, xaritu Lamine ah est-ce que bàyyiwut Lam na ne suñu li ñu ko wax Lamine seytaane <laughs> ko man. waaw ndeysaan la moom tey sax Lamine dama Dakar mu ne ko saytaane parce que at ngaa ko que bëggul maa maa ngi wule ànd ak mu ne <laughs> ah. na ñëw amul door yi ma ko door fii. non bu ñëwee fii daa mel kii ak tey koy. kii rawaana mi ñoo koy digal pour muy door liiru gàmm. daa daa jëloon suñu avance dem États-Unis yàq-yàq kamaa bi fii dootu ko defati ndax nañ ko fa mu yóbbu gàmm yi dootu ko def. <laughs> Lamine <laughs> Lamine ma lay nuyuwaat bu baax a baax a baax nga nekk ci suñu confrère nekk ci liggéey bi vraiment di ci liggéey liggéey bu am solo euh, ñu gis ni xale boo koo toogal rek dañu yaakaar ne Lamine kooku la faral tey gis naa sa diggante ak Lirou gis naa sa diggante ak Wouly gis naa sa diggante ak yeneen mbër yi loolu lan la. waaw maa lay nuyu bu baax Ba Dieng di nuyu waa Wasaare Lamb yëpp loolu dara comme ni ko Bombardier waxee rek. làmb dafa fiir boo xamee loolu soo demee ci mbër bi da wax li nga siq ak moom su ma toogee wule damay wax li ma séq ak moom li nga xamante ne moo ñu concerné ñun ñaar su ma demee ci Lirou Diane ma wax ak moom li nga xamante ne moo ñu concerné ñun ñaar ba ñu dugg ci ay détails yaakaar naa ne loolu kese la mais du leneen. Hmm. ñu ci bëree bëri dañuy gis ni tey taxawaay bi. Euh, ni muy rafet rafet am na ci ñoo xamante ne sport ak ak relation personnelle bi nga xamante ne séq nga ko mbër mi ñooñu lan nga leen wax. ñooñu dama leen wax dara parce que ni nga toll rek noonu ngay waxee du ma ñu wax ñooñu dara dara parce que am na ñoo xamante ne ñooñu fi jiitu du suñuy papa si mel ni Bécaye Mbaye moo ñu fi jiitu Lamine Samba moo ñu fi jiitu Malick Thiandoum ñoom ñëpp ñooñu fi jiitu liñ dégg xaaj xaaj bi duñ ko dégg suñ ko naree dégg sax dem bàyyi leen làmb ji suñ ko naree dégg bàyyi làmb ji waaw mais lu ñëw rek mën nañu bañ a bett mën nañu xaar lu nekk waaye ak lu mën a xew lu nit wax. ñu danañ góorgóorlu ba lu ñu nit mën a waxal rek loolu bañ a nekk si ñun. li wolof naan bañu ma ko ma sedd ci gaaru xaj waaye doo ma ci fekk. voilà noonu la demee waaw noonu la demee. ñu lay jaajëfal bu baax a baax. bu baax a baax sama xarit di nuyu Basirou ku baax la te am taalibe maa ngi koy ziar bu wér a wér jaajëf.